xoola déglu lii rek dangay déglu da déglu journaliste la xawma animatrice mais ñii lan moo tax ñu mën a duul mën a déformer ay wax mais xoola xoola li muy laaj ne dib dund dib dund gis moo ko wax lii ay waxi boppam la dib dund gis la mu wax ak moom li muy wax nii c'est totalement opposé bu dee animatrices yi ñoo fi nekk di déformer ay wax waa léegi bu politiciens yi déformer ay wax lu ñu leen di vaaree doye duul yi ñuy duul moom moo daj ñëpp di duul Sénégal lii lii dëgg la xoola animatrice bi mais xoola déglu leen rek da ngeen di déglu vidéo bi ngeen déglu li mu koy laaj boo leen pare naa naa si yokk vidéo wu Dip Doundou Guiss li Dip Doundou Guiss wax ngeen àtteel seen bopp journaliste yi xaw ma ay journaliste lañ xaw ma ay animatrice lañ télé yi daal moom ku leen neex lañ fay teg mais xoola ñaar ñii kàcc yi kàcc ay feni neen yoo xam ne di ko tuumaal nit heureusement sax kañ koy laaj kañ koy laaj moom tontu na tontu wu nite te ñoom kooku lañ bëggoon jàppee seen dof fekk ñoom ñooy dof dooma xaraamata njaay di yàq di duul di jaxase mais ñii ñii xool leen lii rek déglul déglu leen rek après ngeen déglu laaj bi rek après naa si teg euh, laaju kii bi Dip Doundou Guiss duuli neen dong la tele yi di def euh, Dip Doundou Guiss mhm. dafa def benn sortie mhm. ci benn émission mhm. nee Euh, li am importance ci réew mi joxuñu ko ñiñ ko war a jox pour ñu véhiculer message yi mhm. ñu jël ay genre comédien ay ñoo xam ni seen jàng sori wul mhm. ay comme par exemple benn ketchup mhm. wala benn ñaaxarañ loo ñuy véhiculer loolu moom lan nga koy tontu ci loolu parce que yéen la visé ñuy véhiculer lan euh, euh, maanaam ñi yéen di véhiculer ay message message yoo xam ne comme par exemple damay jël exemple benn kaawu Marcel Diagne damay gis ngay publier ay projet am. Mhm. Ndoura Baldé même mhm. chose. Mhm. Euh, ak keneen ak keneen. donc moom lan nga koy tontu ci loolu. tant que musicien. en tant que rappeur moom. Dip maa ngi koy nuyu bu baax. le grand rappeur. ndax fu mu nekk nii Sénégal bi yëpp doo wax rap. te du doo Dip. te boolewoo ci man moom dama koo sopp dama ko bëgg. ndax gaynde la. moo mujjee ñëw ba pare yëngal. fi Youssou Ndour di duy ak Pape Diouf moom fa lay duy. ba mu fees dell. ko nuyu au passage ah. maa ngi koy mais nag faa. jamono jii nag ku bëgg sa produit jar da ngay dem ci ñi nga xam ne ñoo yor visibilité. te ñun mais mais moom bi muy wax loolu c'est par rapport ak moom. que moom tey am na loo xamante ne ñoom ñii. Mm-hmm. ñoo ko gën a mën a def. Mm-hmm. que ñii jàppee ay comédien moom dafa jàpp dafa dafa bëgg wax ne kon ay comédien ngeen. ay comédien ngeen d'après ni ñu déggee waxam daal amoo leen benn niveau pour véhiculer yenn message pour a jàll. moom laa lay wax. Mm-hmm. tey man de message bu ma véhiculé wala produit bu ma sànni nit ñëpp jënd ko. bu ma mhm. véhiculé nit ñi déglu ko. Mhm. sant yàlla la. kon loolu nga koy tontu. loolu la wax kon yàlla moo ñu may visibilité. Mhm. yàlla moo ñu may loo xam ne ma tey yaa ngi gis ku am. ku ku jàng bureau bay fu mu nekk ni Sénégal loolu moo fi am. jàng bay bëgg a dee ci am loolu moo jàng communication. kenn jëlu leen. jàng communication kenn jëlu ñun kenn jëluñu de. dañoo créer suñu bopp. ñun tey dañoo prouver ba nit ñi xam ñu nit ñi bëgg kenn xaalu leen yoon kenn xaalu ñun tey kenn ñëwul jël ñu nañu dañ leen di jox lii mhm. ñun tey ñoo ko créer sama bopp comme ñu mhm. ko ñëpp am ñëpp am nañ snap ba ah. mhm. xale yooyu ngay wax communication am nañ ay snap dañ leen a xamul moo tax suivre lañ leen mais ñun yàlla moo ñu may xameel ñu ñuy suivre moo tax lu ñu dugal léegi àdduna bi yëpp gis ko mais maa ngi koy nuyu bu baax dépp peut-être bugguñu ko mais ñu ngi koy def pour génn si ba pare affaire bi fekk siwu leen. kii du ci école rek lañ koy defee c'est vrai. waaw mais yow. jàngum école rek mun na laa. maanaam imposé nañ la yow nga jàng. Mhm. nga dem jàng. waaw mais ya jàng bay bëgg a dee gisoo dara. Mhm. loolu day ñëgloo nit. Mhm. parce que bu fekkoon defoo ko ñu ne waaw mais def nga ko yaa ngi toog mënoo liggéey da toog ay mois ay années. di mm-hmm. déposer fu nekk doo liggéey. Mm-hmm. mais après da ngay gis benn waaye boo xamante ne ay snap lay def ak ay yu kenn xamul dama yàlla baal. xam après kooku ñu jël ko may ko benn gëdd boo xamante ne yow fi nga jaar yow foofu yëpp xalaatu fa sax jaar. Mm-hmm. loolu am na ñu muy ñëgloo ñu bëri. la promotion de la médiocrité exactement du ma jugé du ma ne euh, c'est médiocre ou médias yi dañ siy joué. oui médias yi dañ siy joué bu baax. aujourd'hui que benn média classique du koy def rajo et télé je pense que am nañu ci am éthique ak déontologie. non ñëpp koy def filtre ba léegi mais aujourd'hui les médias c'est c'est démocratisé. non mais télé chacun a sa sa télé dans sa poche. Babsiri si télé nga nekk. waaw nekkuñu fi pour naxante de. waaw ba ngoon comédie mooy daw si télé yi. non non non suba ba ngoon. journal bu jeexee comédie mooy ñëw. déedéet non dañu waxante dëgg. je suis ma limal la affaire yi. wax ay émission yi ñuy dawal ci kër gi naan émission kër gi la hmm. midi suba si émission yeewu bi mooy am. y' a plus de divertissement. ñi ci war a liggéey di mm. seetaan ay émission yeewu. Mm-hmm. xam nga si jógee ñu tegal la émission mm-hmm. kër gi. Mm-hmm. émission kër gi bu jeexee journal bi bu ji journal mooy ñëw bu journal bi bu jeexee kii mooy ñëw comédie yi mooy ñëw. ngoon bi ay émission comédie ñooy ñooy am. ñu invité artiste benn waaye taxaw animé ay comédiens ñëw ñu comédie. guddi bu jotee série yi mooy daw. ana place nit yi nga xam ne ñoom la ñu war a def ay si dëkk bi. Hmm. si télé yi anañu. amul je je ne suis pas d' et on peut débattre. non mais on peut débattre c' ça l' importance du débat mais suis pas d' ok par exemple. waaw bi ma xam laa lay wax. 2 par exemple dès le matin après oustaz bu defee ay darsom ba